Euh, sabadoor bu bees la sol sonko du xeex sonko du xeex baaxul ci moom déedéet déedéet baaxul ci moom voilà ah, ñu ngi koy xëcc waa mm. parce que ñoom yàgg nañ ci biir ah yàgg nañ fii ci óol bi mi ngi noonu mi ngi noonu ñu ngi koy yóbbu waaw euh, mm. mm. mooy mooy sànq li ma la doon wax parce que bi ñuy interrompre euh, bi ñu bi ñu arrêté woon séance bi dañ doon xuloo di xeex ma ne la loolu benn soxna buy sëy la si biir assemblée nationale xeex ak saagante moom daanaka dàmm nañ ko biir asam loolu du information mais sox bi moom ñun suñu kanam moo tax mooy mooy li ma la doon mooy li ma ma la doon wax sànqan ah, parce que li tax ñu ñuy parqué ci biti toujours ñu bañ a génn yenn image yi mm-hmm. député bii moo voté projet de loi bi député bii moo voté projet de loi bi pour ñu jéem a sàmm seen kaaraange nga xam ne bu fekkee ne euh, député yu bokk ci mouvance présidentielle muy Benno Bokk Yaakaar nga xam ne ñooñu buñ ko voté dinañ mën a sàmm seen kaaraange ndaxte ci biti bu ñu voté yenn yi si biti day tàng léegi nag gis nañ fi ay ñoo xam ne dañu taal seen kër dañ saccagé seen i kër xëy na raison yooyu rek la mais ñun amul benn raison boo xam ne journaliste yi dañ leen di bàyyi ci biti loolu moom amul explication euh, sëñ Mansour Sy Djamil mi ngi noonu di agsi honorable député hmm? le sage bu ñu bu ñu mënee rek Ouais, ouais, Mbéri. Ouais, ouais, Mbéri. En tout cas, vous avez notre soutien, vous avez notre solidarité, vous avez... Ouais, ouais, Mbéri. En tout cas, vous avez notre